ay guy mbind laa jëm ca péncum mbër mu mag ma lamin Cheikh Bamba yaakaari jaam ñay baay ba soxna Aminta loo mu man góor ma moo doon way juram wu jigéen Baara Mbàkke ngi feeñoon fii ci àddina 1891 at moom tubaab ca la woon Touba la feeñee fi tolloog fii ñu samp jumaay tuubaa ji ngir kër Serigne tuubaa gi fee la nexoon bis bam ñëwee la Serigne Touba ne mag ñi gilëg gan moo àndaale li ngeen doon sàkku yewwiku leen nee nañ keroog lim bu takkoo takku lool la gërëm Sëñ Baara kon loolu mooy sëri ca bim ñuy toon Sëñ Bamba duppew cëram njool Makka soppe ba tax koo taalifiy ton di kañ koy bakk rek aka jiin ab diir bu néew la def yaayam ja ba mi làqu booba sëñ baara at ak weer yu néew la amoon gannaaw ba nag sëñ bi daat koy dénk maam xawa buusa way juru sayxu faadal mbàkke moo ko yoroon ca noona it ba matee dal sëñ bi moo ko dalal am njàng tuubaa mu doori jàng baa ak isiin ba nag sëñ bi daat koy jël joxaat ko sëriñ daam abdu daaraam ca ndaam daarul xalim la ne woon foofee la jàngee ba mokkal ci ndawam ne naan mokkal ga la ngir njàngiin wa moo rafetoon ba mokkalee mokkalin woowee ba jukki amal daru lan ko joxon ngir tierno jangal ko xam-xam tombe ak ba serigne Touba di dem ci liggéeyub tukki bam amalon mom ak serigne Mustapha ak Cheikh Fallu Mbàkke le serigne Touba joxon tierno na nan jang tarbiye len ay adu yu lan ca tek ginaaw bi serigne bi deme ci yoonu mu am febar bu len teralon mam tierno sax dem na bay ñaan yalla na ko jëlal sa doomi bop yi doomi serigne bi yëkkati len jangoro jojja sonal serigne baara Mbàkke ba tax ko néew lu muy deg febar bobu peste la woon tay tawat di ko tee yeggale ma galankor ko ci mbir yu takko takku yumme mébétoon téewul mu fees dell géejoo géeju mbër la ci mboolem fànni xam-xam yi di shaahir bu jekk wayin bindoon na ci way na jagleeg yàlla gum ma defal moo tax ma nekk boroom xam-xam bu màgg fi yéen nee nañ ginnaaw sëñ bi lim way ci xasiida amul kaneen ku bind lu toll noonu fi ak ca faneen nee nañ itam aw wayinam nim nuroog bu sëriñ tuubaa ci xeetu tëggin loo lii gisuñ ca kaneen foofee ca maam Cerno guy nguraan la nekk ba sëñ bi dikk delloo dellooti gànnaar jug fa del si ca yéen boobee itam la ko sëñ tuubaa yebal ca dëkkub sànnoo si maam siréloo jàmbaar ja moo fa googee la sampuk këram jël soxna maam xari gay moom sëñ Mouhamad Lamine Gay askanoo ca ngayeen doonoon jigéen ju rafet ab juddu sell te yiw moo meññi sëñ Moodu Xaafis mii di taawu Lamine sëñ Baara teeloon a am ak ubbi koo waraloon muy dem fu nekk ba tax waa réew mi ñépp a ko miin am nit ñu wax sëñ bi sëñ baaraw fasam la yorey wër réew mi fu mu yendu tey ëllëg mu seeti fa neen sëñ Bamba woolu ko dat koy jox ndigal ci mu toog bindal ko kaamil di xool leenee ko nit ña waxoon ci fukki fan ak juróom ba noppi li lee tax sëñ bi xam ne ja daa wax yàq lan ca ndigal ki mu dem Mbàkke Kajoor sëñ Amar Fall mbakke moo fa ne woon foofee juróom benn weeray lam fa def randu tuut muy fii ñu koy defalee màggal gi moo ko goroon noo yal na suuf soo sa dundal ruye samp fa ay daaraaki ki jàkk ña réeroon ñépp gindi na leen liggéey na foofee lu xel dul màcc mukk ba daj nam toll sëñ baara daal ndimbal la lun ñiitoon Mbàkke Kajoor Mbàkke Njokk ak Mbàkke Baari Jolof xabbaan baraakan dëkkam yaa ngi te des na yeneen fu mu gor fu nekk liggéeyal yàlla sax ci ndigal lay dëkke foofee ne dëkk ñaaxoog ñaaxe gindi ku réer reggal ku xiif ak wéral koo xam ne daa tawatoon ak fekk kuy mooy mu fat fóotiy dandam ba mu set sol kooki leer ba mu am raayob ñu baax ña fi woon noo nii la dëkkee ba sëñ Tuubaa ba woo fi mu dem jaayante jeeg Moustapha Sine mag ja tàwu na leen muy xoole Seex Moustapha Sine Bamba dëkki di bay hectare yaay yit ko lam góob lépp nag ci ëreen gii li muy dund sànkul seen saa ci dundam ndax mës ta fas tey loxoom lum noppi dal ca la neen ak ñàkk gëstoo waral ñuy woyof ci ak wet le wet ci wet ki di lamiin yor mbooti biiram yu kenn kenn mësti yor ba noppi yor leen yor funniise fekk mu xiin tawat balaa musibaak ndog pakk ay wu fi jëm moo daa ko fekk yiw akuk naataange ñod na leen nee nan bu am at masaa ñëw kum bindal ci sa tànk moo ma at doo ca dee sab tàgge duñ ko ca seen ku ñëw ba yegg si bindul sab tànk boo dufulee dem tuubi xam ne sa ceeb bi dëj ba léegi mu niin mboolem njabootug sëriñ tuubaa gi dal di ko jox ab cër bu mat ndax magam yéeg rakk yaa ko wegoon kër seexi sëñ xëy ñëw gontu seeti ko ngoon seexal na ay seex yu takkoo takku yooyu di ko lim yombul xanaa tey ma wax cib lim taxaar ba baneen sëñ Ahmad Jaw Waalo ak sëñ Moodu Soxna Amar ak sëriñ Baykan ca gaa yi sëñ ma koddu kaseeg sëriñ Mohamad Lamin Silla ak ñaneen ca faneen sëñ ñaan mi sëñ Bamba booleeg moom mu xëy ko gërëm ak sëñ Mohamadu Taal ñii ñépp samp na leen def leeni kàngam yu boot mbooloo yu takku ba fun leen tudde ñépp ne ciy baaraay ki leen cëraloon noo nii la dëkkee ba xëy ublam bi diina ji dem boolay ndabam mom yobbu yóbbu dundam gep wàcc ci yoon altene 24 ci février la won atu 1936 ci ya mom la demone mbakke kadior ge la laqo seigne habibu imam ak seigne basir la magam cheikh mustapha yabalon ño andi seigne bara jambar je liggey ba ne mes bu soy ki waajal mbeur mu mag malamin lim def di saf ku fi def téeméeri at te dundam ñeen fukki at ak juróom ñaar la ni romb ko won ñeen fukki at ak juróom ñaar yeeka rëy lu ci xew ci tek diina ak ay ndam yu taru ta dun ñeen fukki at ak juróom mi sanku ci leuf jàng ak liggéey jaamu yàlla ak topp ñee ko magoon ñeen fukki at ak juróom-ñaaram yi gotti na ñaar téeméeri at yooyu kaneen ngir sàmm gam saxaloon ñeen fukki at ak juróom-ñaar gor na dëkk yu rëy taalif ci ay téere xàllal yoon wa ñeegalamoon ñeen fukki at ak juróom-ñaaram yi kon ko waxul koo man di doon doona jàppoon naa ne lii la amoon déglee na dëgg yéen ñu jox seen ruu yi moodu lamin ëllëg ca bis penc doo leen rus di ñeewi kaneen déglee na dëgg yéen ku sa mbër la ak cant ak ngërëm moo la war béglee na bég bége leen béglee na bég waay ne seen na